benn laaj laaj bi mooy président Macky Sall lan la la Mali def ba nga war a tëj frontière u Sénégal ak Mali lan la réewu Mali askanu Mali def président Macky Sall ba mu war a tëj suñu frontière ñun suñu frontière Sénégal digganteem ak Mali dara tous lu dul nekk surga président Macron ak Union européenne lu dul nekk jaamu tubaab yi lu dul nekkal fi France ay multinationale am ay entreprise am ñun ñëpp xam nañ li xew dama ne tey jii nii sénégalais yëpp africains yëpp maliens yëpp xam nañ li xew Mali dafa am woor Mali dafa am or dafa am wurus France amul wurus France defe naa moo yore ñeenteel wala juróomeelu stock d'or ci àddina bi fan la koy jëlee ma bamtuwaat ko Mali dafa am wurus bu dul jeex France suufu France munoo dem fenn ci France fekk fa un gramme de or un gramme de wurus fan la wurus boobu di jógee France da koy sàcc ci réew yu mel ni Mali moo tax France bëggul jóge Mali. suñuy réew dafa am bauxite dafa am uranium courant bi nga xam ne moom la doomu France di jëfandikoo mu ngi jógee Niger uranium France amul uranium France suñuy réew la bëgg a des mu ñuy nokkatu di ñu seeñu suñu rongañ di siim moom France cerem ñu golo yi africain yi ñuy béy moom France moom Macron baabun bi muy dundee loolu la France bëgg a wëyal africains yi nag seen bët xippi maliens yi nag seen bët xippi xam ne nag naam li tax Mali mel ni mu mel li tax Mali ndóol bokk na ci doomu Mali lu tax Sénégal ndóol bokk na si doomu Sénégal lu tax Afrique ndóol bokk ne si doomu Afrique bëtu maliens yi dafa xippi ci ne bokk na ci li tax ñu ndóol ay réew yoo xam ne ñoo leen di noggatu di sàcc seen alal di leen di noot nooteel boobu la Mali wax ne dafa jeex lii firndeel nooteel bi mooy 2012 ba tey 2021 muy ñaata juróom-ñeenti at France am na fa lu ëpp juróomi junni soldat biir Mali am fa ay char de combat am fa ay avion am fa ay drone ñu ne Samba Boy yi ñuy woowee les terroristes ñu ngi toll ci ñaata quatre mille cinq cent France rek am na lu ëpp juróomi junni soldat waxuma la nag soldaaru Mali waxuma la soldaaru Sénégal waxuma la soldaaru MINUSCA ba tey terrorisme mënul jóge Mali li am mooy France setul ci terroriste yooyu dama koy fàttali Laurent Fabius ministre des affaires étrangères bi Syrie amee problème moo ne le groupe Al Nostra liggéey bu muy def ca siri liggéey bu rafet la xam nga lan mooy groupe Al Nostra moom moom mooy ñi teewal xaw ma euh, Al Qaïda fële ca Syrie loolu lu muy tekki mooy France am na lu muy wax ci bëccëg nag kàmb am na lu muy def ci suuf di roofaloo ak yenn terroristes yi ma ne deux mille vingt deux bii ñu toll xam ngeen ba ban deux mille vingt deux la ñu toll ñu ngi naan ñun nit yi ñu ngi dem uti ndox. fële ca planète Mars te ñu jàpp terroriste yi nekk Mali ku dof ku dof kan moo mën a gëm loolu ñu ngi naan ñu ngi dem seeti ci ay xawma planète Jupiter planète xawma naka euh, Mars ndax amul woon ay nit yu fa doon dëkk te fii mënuñu gis terroriste yi mu ñu leen jàpp li am mooy France nekku fi pour xeex terrorisme France li mu fi nekkee mooy dooleel terrorisme ngir gën fi mën a toog gën fi mën a sax ngir gën a mën a sàcc à qui moo manque suñu alal ñun Mali ñuy gën di ndóol ñun Sénégal ñuy gën di ndóol Maliens yi nag ne léegi comme France mu ngi fi depuis 2012 comme MINUSCA xaw ma mu ngi fi depuis xaw ma kañ mbir mi soppiwul mais xaar ma seeti leneen mais damay fàttali ne. le Mali est un état souverain Mali moom moom boppam Mali am na sañ-sañ ne mais France man maa bëggoon nga ñëw jàppale ma bëggatuma Mali am na sañ-sañ boobu France ne déet doo ko fi waxee France ne déet du ma fi jóge Maliens yi ne France dégage France ne maa bañ du ma dégagé comme nag France xam na ni léegi mu dégagé te amul pexe mu ne nag comme ni ñu ko doon defee jamono njaam ak jamono. maanaam colonisation. d' accord xaar ma ut ay nègre de service ay nit yu ñuul ñoo xam ne ñoom ñooy jaar ci suuf jamono jaam dafa amoon ay nit yu ñuul ñi doon jàppale ñi doon ut ay ay jaam. jamono colonisation dafa amoon ay nègre comme man ay nit yu ñuul ni man doon jàppale tubaab bi ñuy daan seen moromu c' est la même chose El Dico c'est va-et-vient ce n'est pas acceptable El Dico ce n'est pas acceptable Et ça, je l'ai dit à tout le monde. Ce n'est pas acceptable, c'est va et Et donc, et donc askanu Mali fu mu nekk nii li mu ne mooy France foog mu jóge fii foog mu dem ndaxte France loo xam setul ci li xew Mali France na dem lijjanti ay béykatam yuy xaru na dem lijjanti ay lalu hôpitalam yi nga xam ne dafa manqué na dem lijjanti. ay ñaata juróom juróom-ñeenti millions français dañoo ndóol il y neuf millions au moins de français pauvres France na leen dem lijjanti te bàyyi malien yi lijjanti Mali dama ne le Mali est un souverain bi France di dugg 2000 ki daal malien yi di tàccu ay malien di tàccu naan vive papa Hollande boobu dañoo xamul woon mooy li waa ji doon wax rek on ne peut pas tromper tout le peuple tout le fu mu nekk nii nag Malien yi dafa leer naññ ci ne François Hollande Sarkozy woo nu mu tudd euh, euh, Macron woo Marine Le Pen woo nekkuñu fi pour intérêt Afrique nekkuñu fi pour intérêt Mali. léegi nag Mali am na sañ-sañ ne France demal doy na loolu moo métti France loolu moo naxari France comme nag France amul pexe lu dul lem ay bagaasam dem. ñi nga xam ne ñoo ko fi toogal muy président Macky Sall muy Ouattara muy Patrice Talon muy président Niger muy Roch Kaboré ak ñoom seen Macron ne leen ñoom ak président CEDEAO fat mais gis ngeen mi ñan ñoo teew ci sommet CEDEAO jaaxulu leen ne Nigéria teewul woon Nigéria du dof Nigéria du dof kenn du ko dugal ci lu mu xamul Nigéria teewul woon CEDEAO di ngeen gis ñu lim ñëpp du ñu lim CEDEAO du ñu lim Nigéria ndaxte Nigéria xam na li nga xam ne moo doon laal ci suuf moo tax sax d'ailleurs dañoo jaaxle ci taxawaayu président Ghana waaw lan moo tax sax mu nangu lii du dëgg yoon jekkul Mali lu mu soxla tey mooy ndimbal Mali lu mu soxla tey mooy jàppale Mali li mu soxla tey mooy ne nag ku nekk jóge fu nekk ci Afrique ñëw jàppale ma. ñu naan déet ñu naan xaw ma léegi dañuy tëj frontière Mali dañuy tëj Mali ràpp ñu teg ko fan ndax lan ñu ne d'accord ñu xaw ma ci transition juróomi at ñun yaanamaa ñun fàpp joxe wuñu suñu gis-gis ci ndax juróomi at ñeenti at fukki at doy na wala doyul xam nga ñan ñoo ko war a décider dañ ko wax te dee añu ce sont des manières est-ce ñun ëllëg président Nigéria bu ñëwee ne non non non non Sénégal nii lay demee ñun dinañ ko nangu du ko nangu. du ko nangu fii Sénégal la sénégalais yi ñooy décider luy xew Sénégal donc luy ndeyu Macky Sall Ouattara Kaboré surga France surga Macron ne ñoom ñoo war a wax malien yi ñu war a def ci Mali. malien ñooy naan d'accord nañu si juróom si ñetti at si ñaari at si lu mu munti doon nañu tojante bopp sax. Macron na yem ci place France ak Union européenne na lijjanti béykatam yi nga xam ne béykatu France yii xaru bés bu nekk 600 agriculteurs français se suicident chaque année en France Macron n'a qu'à s'occuper de ça na ko lijjanti te bàyyi maliens yi lijjanti seen problème y a ay 300 wala 400 SDF chaque année qui meurent ndax seddaay liw liw ci mbedd France yi Macron na lijjanti loolu. Macron li jëm loolu mu ne moo war a moom moo gën a bëgg malien yi ak africain yi que Mali ñun nag nit yu ñuul yi ñun africain yi ñu war a gëm loolu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg moo tax ñuy ñaawlu li CEDEAO ak UEMOA def ndaxte taxawaayu warkat la mooy traite UEMOA lu mu def taxawaayu warkat la maanaam dañoo tam taxawaayu ku génn xeet gis ngeen France dafa bëgg toog. yendu fanaan sax maxe Mali Union européenne di jàppale France Mali bëgg France jóge Mali ñun africains yi suñuy président au lieu ñu jàppale Mali comme ni Union européenne di jàppale France ñun suñuy président yi di jàppale France ak Union européenne loolu ñaaw na loolu mooy trahison loolu mooy warkat loolu mooy génn xeet loolu mooy apatride ñun loolu la ñu ñoom aññe ne jekkul lu tax mu gën a ñàkk jekk xam ngeen mooy lan mooy d'accord transition bi dina def ñaari at ñetti at ñeenti at juróomi at bon man leen nañ ko waxtaanee seen biir nañu tojante bopp seen biir lu mu yàgg yàgg yàgg dinañ d'accord ci dara mais ñun ñooy ñen ñun Sénégal 23 janvier bii la ñu war a fal les conseillers municipaux ñii war a jeexal seen mandat ñu ngi leen fal 2014. seen mandat jeex deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille vingt et un deux deux ans et sept mois yu ëpp te ñu ngi ci réew bu am jàmm maanaam bu dee Sénégal mu ngi am jàmm ñu prolongé mandat conseiller yi de deux ans et sept mois Macky Sall mooy kan ba war a wax Mali bi am guerre bi am terrorisme ne transition bi deux ans trois ans un an la war a durer. Sénégal bu nekkee ci jàmm Macky Sall may boppam deux ans et sept mois pour organiser élection kon xanaa Macky vingt ans la war a jël nañ ko waxante nañu waxante dëgg nañu wax dëgg Macky Sall eh ñun Sénégal ñooy ban réew mais mosuñu fi dàq élection ndax xaw ma dafa taw wala ay xar dañoo dee dafa sedd fat mooy ci année 2000 Aliou. ay inondation ay mbënd ay eh, mais ñun ñoo fi dàq élection ndax mbënd ñun Sénégal. léegi ñun Sénégal mbënd moo tax ñu dàq élection man naa yi ne loolu la ñu wax ci assise nationale yi dëgg la nag assise nationale bëri woon na gis-gis ñii naan deux ans un an mais ñëpp d'accord nañu ne ci ne réewu dafa war a am kaarange ngir ñu mën a voter mais <laughs> réew moo xam ne amul kaarange samba boy yi terroriste ñu fa fees dell non mais nooy voter ñun ñu dàq élection pour mbënd inondation kon xanaa kay war nañ mën a nangu réew moo xam ne lu raw mbënd ndaxte mbënd mun nga fay mun nga xuus ba génn waaye balu terrorisme bés bu ne ngay dégg fii dee na fii dee na fii dee na fii ay nit dee na fii ay nit dee lii de mooy wax ci kon li am mooy wax ji du affaire transition bi ndax juróomi at la ndax ñeenti at la ndax ñetti at li am mooy dañoo mbubboo ci loolu Mali ak askanu Mali ci lu ñu am ful ak fayda ne France daf foo war a jóge gis ne ni ñuy def Haïti le premier état noir Haïti mi nga xam ne ba tey mënul génn ci ndóol ak si jafe-jafe ndax lan tubaab yi mënuñu nangu ni nit yu ñuul yi nekk Haïti ñoo def lu leen métti ñoom ñooy les premiers noirs gulet nekk si njaam génne leen dàq leen ñoom ñëpp créer le premier état noir ñu teg ay conditions ci Haïti ngir Haïti ba ilaa yow mitin du génne si coono ak si ci loolu lañu nekk ci Mali sanctionné yaa ngi ni fàttaliku bu Sékou man damay génn France damay génn communauté indépendance laa bëgg lu opération Persil opération Persil ñu saboté Guinée ngir Guinée du baax du jag ngir benn africain du bëgg indépendance parce que bu xoolee Guinée lu mu mel day naan bu dee lii mooy indépendance tee maa ci colonisation ma ne Guinée moo waxoon ndëkk ne damay génn indépendance xool leen li xew Guadeloupe xool leen li xew ci Antilles yi des Français de seconde zone ñu leen di posone ñuy dee loolu la bëgg a ma Mali mel ni ku yor sa doom di dóor ma ne askanu Mali ak réewu Mali du doomu France du doomu Macron du doomu tubaab du doomu Union européenne du doomu Sénégal du doomu CEDEAO du doomu UEMOA mais le Mali est un grand pays le peuple malien est un grand peuple dama leen di fàttali ne Mali baat bi lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti mu ngi juddu am na lu ëpp junni at turu Sénégal kenn ñu juddu Mali bu ñuy dégg turam am na junni at. kon Mali du lu tuuti kon ñun sax dañoo war a xeex ndaxte en réalité c'est l'histoire d'un grand peuple et d'un grand pays qu'on essaie d'étrangler moo tax ñun Y'en a marre ñun FRAPP ñun LPU ñun euh, aram aram ñun euh, mouvement euh, de la plateforme des jeunes ñun ressortissants de Bougouni environ ñu ne ubbi leen yi li woykat bi doon woy ouvrez les frontières ouvrez les frontières ubbi leen frontières yi frontières yi moomu leen ko Macky Sall moomoo frontières yi Kaboré moomoo frontières yi Patrice Talon xaw moomu leen frontières yi ñun askanu Sénégal ñoom moom suñuy frontières ubbi leen frontières yi dinañ xool nag ñu ñu lëkkaloo ak yeneen mbootaay ci Sénégal ak ci àddina bi dinañ xool nu ñuy lëkkaloowee ak commercant yi wala homme d'affaires sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fii Sénégal te tëjub frontière yi nag leen sonnal même bu fekkee ñoom affaire transition affaire français yoon newu ci mu ñun d'accord ñu ci tëj frontière yi ñoom tëj frontière yi mu ngi leen di gaañ dinañ xool nag li ñuy àndee ak ñoom moo tax d'ailleurs ñu ngi rafetlu la centrale syndicale la confédération des syndicats autonomes CSA bu Elimane génne na un communiqué c'est une centrale sénégalaise parce que xam na ne liggéeykatu Mali dañoo nar a am jafe-jafe ak tëju frontière bi ñoo ngi invité CNTS CNTS FC ak UNSAS ñu jël position comme ni ko CSA une centrale syndicale sénégalaise jëlee position contre le blocus contre l'embargo xam ngeen luy blocus embargo mais Cuba depuis lu ëpp juróom fukki at xaw ma juróom benn fukki at États-Unis daf ko imposer embargo ak blocus muy jur problème d'accord ñu ci tey d'accord ñu ci ëllëg président Macky Sall mi toog ñaari at ak juróom-ñaari weer balaa moo organiser élection locale moom il est très mal placé pour wax malien lu ñu war a def seen biir. Faure nga xam ne dafa doon tëggoo ci baayam Gnassingbé Eyadema ay militaires maliens ñu gis leen ci télé yi ñuy daw ak ay urne ba su élection mooy kan ba war a wax malien lu ñu war a def Ouattara troisième mandat illégal et illégitime lay def nii. Ouattara mooy kan lu dul surga France pour wax Maliens yi lu ñu war a def ubbi leen frontière yi bu ngeen ko tijjiwul ni ko Aliou waxee ñun dinañ jël yoon bi dugg Mali fan yii di ñëw bu ñu ubbiwul frontière yi ñu ngi lancer un appel à tous les Africains. ñun sénégalais ñun gambien ñun guinéen ñun burkinabé ñun ivoirien ñun togolais ñun béninois nañu dem fekki suñuy mbokk Mali pour wax leen ne c'est un peuple un une foi pour wax leen ne face à la CEDEAO des présidents fantoches des présidents laquais des présidents valets de l'impérialisme nous allons ériger la CEDEAO des peuples des peuples dignes des peuples contre l'impérialisme contre la domination pour la souveraineté je vous remercie bu dee am na ay